وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يا عباد الله لقد أصبحت حياتنا اليوم جسدا بلا روح لأن السواد الأعظم للأمة مجرد عن الروح فارغ عن الحقيقة وأصبحت دولتنا فريشة لكل مفترش وتعمى لكل آكل وحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينا يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثى كغصاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المباهى منكم ويقصفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت إخواني وأعظم ما تعانيه الأمة اليوم ضعف الإيمان ضعف الوازع الديني وفساد الأخلاق وموت الروح البس مسلمون لا يحملون عقيدة يؤمنون بها ورسالة يعيشون فيها بها لتعيش هي وتحيا فالعقيدة موجود نعم ولكنها ضامرة زابلة دعيلة هزيلة بقي ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala julli ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ku seetlu sunu dund tey ñun jullit yi xaasatan ñun jullitu sénégal ku seetlu sunu dund dana fekk dund goo xam ne yaram bu amul ruu jasad bila ruux yaram bu amul ruu mooy sunu dund tey ñun jullitu Sénégal lu tax mooy xeet wi ngay dégg quatre-vingt-quinze pour cent musulman téeméer boo jël nee nañ juróom-ñeen fukk yi ak juróom ñëpp ay jullit lañ kon téeméer bi lu ci des mooy juróomi nit ñoo dul jullit juróom ñeen fukk ak juróom yooyu ñuy wax jullit yépp doo ko gis nit ñi di ko dund tey mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy ubbi fesmaan bi nee nañ fesmaan pour lan la pour fo ci réew moo xam ne gaz 3500 la fay jar miskin yi genn wàll gi yëpp mënatuñ ko jënd ci réew moo xam ne saakub ceeb daanaka egg na ñetti junni ci réew moo xam ne amuñu courant mënuñu toog journée bi Sénégal gi yëpp di tàkkandoo loolu mënatul nekk ci jamono yooyu nit ñi di dund ay fitna ci jamono yooyu la ñuy jël xaalisu réew mi di ko caaxaane di ko fawee te la tasma illa hamzan doo dégg ko wax munum munum rek ngay dégg mais doo dégg kenn wax amul kilifa diine buy wax amul kilifa aada buy wax amul kenn kuy wax ñépp a noppi daa mel ne li ñuy organiser ci réew mi lu baax la ba ñépp ay noppi léegi léegi moo mujj ci une heure bi ma dégloo rajo bi ñu ne ci stade bu tudd amitié dinañ fa dajale tey ñaari junni fecckat ñaari junni yu jóge ci àdduna bi ak yu dëkk ci biir réew mi ba mu mat ñaari junni léegi ñun ñëpp bu ñu añee ba pare du ñàkk sax fii ci jumaa ji tey ñu dem fekk ji loolu te noonu yàlla yërëm moo tax ñuy dund jasad bi laa ruux yaram bu amul ruux yaram boobu lu ngeen ci xam yaram bu amul ruux mooy yaram baa ngi nii taxaw waaye li ñu soxla yaram bi mu def ko mais abadan du ko def chaque jour ngeen jullee néew sàppa yi ilimaan day ran lenn saay sax mu ne bu fekkee ilimaan bu xam sunna la mu ne def leen ran bi ñetti sàppe ñu indi néew bi tëral ko pourtant yaram bi mu ngi fi est-ce que bopp bi nekkul ci yaram bi est-ce que bët yi nekku fi est-ce que nopp yi nekku fi bakkan bi gémmiñ gi dënn bi tànk yi biir bi est-ce que lépp dara am na lu bougé waa jaa ngi ni tëdd yaram baa ngi ni mais yaram boobu lan lañ koy wax defal ba mu def mooy sunu dund tey jasad bila ruux moom la ñuy dund ñu ngi ni dund mais amul benn cafka amul amuñu benn yëg-yëgu yàlla amuñu fu ñuy yëgee yàlla ñun moo tax ñu ñuy tabaxal ay monument ci réew moo xam ne dama ne amuñu dara dañoo ndóol amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan mënuñu fexe sax ba am énergie ñu ñuy tabaxal ay monument monument bi passé ñu sampal ñu tey fes fes man di ñu boole di ñu indil ay ñaari junni fecckat mu war a diire ay ay fan ci réew mi ñuy fecc di naan di njaaloo di naan sangara di njaaloo xale yu jigéen yi buñ demee bàyyee ñu salte tilim wallahi borom bi tabaraka wa taala bu fekkoonte nu tey jii du ñuy jàng alxuraan ñu ndaw ndawaan ak ñuy julli fii ci Sénégal wallahi yàlla dëpp na suñu suuf parce que egg nañ fu xaw mu luut yemoon ci mbon egg nañ foofu wallahi waaye mu des rek borom bi subhanahu wa taala di ñu xool bëtu yërmande am na fa ñoo xam ne day ñu baax lañ am na fa ñoo xam ne ay jàngkatu alxuraan lañ am na fa ñoo xam ne ñu mel noonu nu raw dawaan moo tax yàlla bàyyi ñu noonu rek ci biir waaye nag yàlla dinañu teg crise économique boo xam ne ba àddina bi di jeex sunu soppeekuul nii rek lay dem yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo wax dëgg mooy as-saadiq al-masduuq ki dëgg ki ñu dëggal moo ñu ne nit ñi bu ñu bàyyee yàlla yusallitu llahu alayhim sultaanan jair yàlla dina sadd seen loos buur bu dëng mu leen di mbugal di yokk seen lépp kenn du ko mënal tus ñaareel wa yaxrujuna min addunia bi gayri iman kuy dee doo yóbbaale ngëm ñett wa yazidu lbarka min kasbihim dund gi yàlla day dindi barke bi ñett yi xadis bi bu fekkee wérul ngeen xool ñett yi dëpp na ci suñ dund wala dunduwul ndax tey fii ci mim réew amuñu ay njiit yu kàccoore ndax amuñu ko ndax nit ñi duñu génn duñu yóbbaale ngëm ndax yàlla dindiwul ci sunu dund barke kon dañuy dund dund gu amul ruu lu tax li anna sawaadul azam lil umma mujarrad anir ruux 95 boobu ngay dégg yëpp mu bëri nekk jullit tey boo doon waxtaan ak benn waay ndeysaan nit ñi bu ñu ajee maaka da ngay dajeeg yeneen nation yi ngeen di waxtaan ñu ne la foo dëkk nga wax leen fi nga dëkk yow foo dëkk ñu nga wax la fee dëkk daje naa ak ay éthiopien man leen fu ngeen dëkk ñu ne ma Éthiopie man leen ma wax leen benn benn yéeféer bu mag boo xam ne seen dëkk boobu la fekk baax ndeysaan ñu ne ma laa qul lana najashi ñun najashi mooy sunu maam bul ñu wax yéeféer bi wax ñu najashi gis nga tey boo nee Sénégal quatre-vingt-quinze pour musulman pour cent musulman nga dajeeg benn waaye mu tiit ah yéen am ngeen loolu macha allah waaye bu waa ji ne cëpp fii di nga ko rusa yóbbu jàkk di nga ko gusa rusa jaar mbedd mi ne ko nañ jaar nii kañ dem nga xool sunu réew réew islam la pourtant Sénégal dañ naan réewu islam dañ koy tiitaroo ñoom diw fii lañ ko suul diw nangam loolu anamu ci mbedd yi ana amuñ ci kër yi anamu ci dund gi mbokk yi dañ ko laaj suñu wàpp kilifa diine yooyu ñuy tiitaroo li ñu fi def anamu tey laa dégg xale bu jigéen bu am fukki at bu am doom déggu leen ko ci rajo bi fu xale bu jigéen bu am fukki at am doom fan lañ jëm ayyuhal ahbab fan lañ jëm fi ñu jëm buñ dëppul mooy dañuy jékki-jékki bis yàlla benn fa lañ jëm wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha lu ci yàlla teg yàlla nee na réew mu kàccoore bañ maa jaamu bisa ngi ñëw danaa leen jàpp wa azabnaaha azaban nukran dinaa leen mbugal mbugal mu saf-sap foo ñu tuub dellu ci borom bi tabaraka wa taala wa asbahat lahum farish gis ngeen tey alamul islaami li ñuy bari bari bari bari yéeféer yi dañ leen di noot di duma di dóor chaque jour moo wax leen ko man leen kaso bi gën a bon ci àdduna bi ay jullit lañ fa denc mooy Guantanamo denc ñu fa ay yéeféer ay jullit lañ jël denc leen ci kaso bi gën a bon ci kaso àdduna bi ay jullit lañ fa denc amul yéeféer ay yéeféer ñooy garder ay jullit loolu rek doy na nattu loolu dong doyoon na nattu jàngeen ci taarix ah waa mu'tasama jàngeen ko yéen ñëpp wala genn wàll gi ci yéen benn jigéen la benn buuru yéeféer jàppoon pes ko xëcc kaalaam kaala gi tas ndaw si ne waa mu'tasama ci jamono yooyu mu'tasam billah moo nekkoon buuru jullit ñi benn waay daw ñëw wax ko buur bi mu'tasam billah mu ne ko benn yéeféer buuru yéeféer moo jàpp benn jullit bu jigéen pes ko xëcc kaala gi bopp bi fireeku ndaw si daal di yuuxu daal ne waa mu'tasama maa ngi woo buuru jullit yi he buur bi fi mu toog ci minbar bi mu jooy ba sées bi tooy mu jël këyit bind buuru yéeféer yi yooyu jàpp jigéen bi lettre ne ko fii ak fukki minute soo libéré wul ndaw si dinaa la yónnee armée boo xam ne numéro un bi ci yow lay nekk ki ci mujj fii lay nekk ci man kon armée bu ñaata nit la naa la yónnee armée boo xam ne première nit ki yegg ci yow deuxième kii mujj ci geenu armée bi ci man lay nekk fi ma toog bu lettre boobu bi mu yegsee ci buur yéeféer yi mu jël ko di ko di ko liir mënu ko téye ndax lox dafa libéré ndaw si gaaw balaa dara di xew ñun tey ana mu'tasama boobu fii fan la ñuy jëlee buur boobu tey buur buy dimbali jullit yi fan lañ koy jëlee ndax dañuy toog ci biir jàkka yi rek bu julli jumaa ñun ñëpp ñu ñëw julli bu bu jàng alxuraan jotee ñu génne ay kaamil jàng bu ñaan jotee ñu yëkkati yàlla suñu loxo ci loolu rek la ñuy nekk toog ci loolu rek lañ bëgg a continuer amuñu lenn lu ñu mun a def amuñu lenn lu ñu mun a def pour fexe réew mi ñu tuub delluwaat ci yàlla lu dul la ñuy toog rek yàccaaral borom bi tabaraka wa taala nee na wattaqu fitna laa tusibanna alladina zalamu minkum xassa moytu leen de fitna bu ñëwee du yem ci bopp borom yéen ñëpp lay raatale te mu ngi nii di ñëw soreetul mbokk yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na maa ngi seen jamono yonent bi hadis bi dafa bokk ci hadis yi dëggal yonent bi ne même boo jàngul soo déggee waxu dëgg war ngaa xam ne kii yàllaa ko yónni kii dafa bokk ci mu'jiza yonent bi septième siècle la yonent bi toog naan maa ngi seen jullit yi septième siècle la yonent bi toog naan maa ngi seen jullit yi bisa ngi ñëw yeneen xeet yi di leen jiiroo di leen noggatu di leen duma di leen dóor ni ay ponkal tiimee boolub ceeb di ko jiiroo saxaaba yi yonent bi doon waxal sallallahu alayhi wa sallam seen xel da doon tàmbale ci yii ah kenn ci ñoom ne ko xanaa day fekk ñu tuuti a nahnu yawma idin qillatun ya rasulallah xanaa yan day fekk ñu tuuti xanaa day fekk adduna bi boog juróomi jullit ñoo fi toog ba juróomi ba ay yéefar di leen dóor di leen rey di leen saax-saaxee di leen jiiroo di leen noggatu xanaa day fekk juróomi jullit ñoo fi nekk yonent bi ne laa déedéet bal antum yawma izin kasir walakinnakum xusaa ka xusaa usayl da ngeen a bëri lool waaye da ngeen a mel ne purit amu leen jëriñ sallallahu alayhi wa sallam moo ñu doon wax hadis bi loolu kañ la woon septième siècle da ngeen a bëri est ce que bëri wuñ dama leen di laaj est ce que bëri wuñ waaye sunu bëri boobu anamu xusaa ka xusaa usayl xoolal jullit yi xoolal yaram yëpp a ngi ci biti dem ba jigéen xale bu jigéen yaram léegi amatul solo yëpp dañ koy génne kenn du wax ñëpp noppi ñim ñoo noppi yanañ yàlla delloo ci diine ju baax yanañ yàlla war sëgal wan dëgg war sëgal ñu topp ko yanañ yàlla wan neen war sëgal ñu bàyyi ko alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah salallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ñu dem ba sunu jamono muslimuna la yamiluna aqida ay jullit yoo xam ne pas-pas sax amatuñ ko pas-pas bu baax sax amatuñ ko lu ne ngay gis nit fas ci réew mi lu ne ñi dañuy gis yàlla ñi ay yàlla lañ ñii duñ julli ñii duñ woor woote yi mel ne mel ne ku nekk di woote te ku woote rek am taalibe ngeen defa ne di nekk Sénégal dëgg la fan la ñuy gisee kuy julli ak ku dul julli taxaw ñu ne ñaar ñëpp baax nañ kuy woor a ngi ni taxaw ku dul woor a ngi ni ñu ne ñaar ñëpp baax nañ kii yàlla la kii du yàlla kii day gis yàlla ñëpp baax nañ li nekk fii yëpp ñëpp baax nañ lépp baax na nañ leen wax dëgg dëgg mënul nekk ay dëgg yu bëri dëgg benn kese la te alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin dëgg benn kese la mënul nekk téeméer muslimun laa yaxmiluuna aqida yuminuuna biha amuñu pas-pas dañuy dund ni rek fawda di làmbatu inna wajanna abaana ala umma wa inna ala asaarim la muhtadin lu ñu fekk sunu ndey ak sunu baay loolu la rek ñu daal ciy jàpp loolu ban diine la bu ñu bëggee dugg aljanna bu ñu bëggee dund dëgg bu ñu bëggee ëllëg dajeeg yàlla du ñu am gàcce foog ñu delluwaat jóge ci lii nu ne lii dara du ci dëgg war a yàlla nappunu tey caaxaan rek caaxaan dong la ñuy woote ci Sénégal mu daal di fees normal baax leneen luy dëgg dara du ci baax caaxaan rek mooy la ñuy woote ci Sénégal laa wax ñëpp ànd nekk benn jàppale ko amaa dëgg fala sunu dund bu ndemee ba foofu ixwaan yi pas-pas baa ngi nii nee nañ am nañ pas-pas ay jullit lañ waaye pas-pas bi anamu lakinaha daamir pas-pas bu yambare zaabila pas-pas bu lax bu dee daila hazila pas-pas bu fulux ñaari jullit taxaw kii ne man yàlla laa kii ne man damay gis yàlla lu Aboubacar lu ab lu Moussa waxoon Moussa yonte yàlla Moussa lu mu amul woon te Moussa ulul azmi min ar-rusul ulul azmi la Moussa mu dem jàkkaarloo ak borom bi borom bi di wax ak moom wax ji neex mu ne yàlla dama laa bëgg a gis yàlla ne ko Moussa munoo maa gis lantaraan yi munoo ma gis Moussa mu ne yàlla insister il faut ma gis la non su ma la gisul du baax non il faut ma gis la comme niñ koy defee rek yàlla mu ne munoo ma gis mu ne il faut ma gis la yàlla mu ne ko unzur ila aljabali in istaqarra makanahu sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali jaalahu dakkan wa xarra musa saiqa borom bi bi mu feeñoo montagne bi montagne bi explosé mab Moussa daal di daanu xëm Moussa lu mu amul woon benn sénégalais bu nekk fi di kiris karas tubayam bu ko am gis yàlla te pas-pas yooyu lañ am pas-pas fanaane yuuxu ba fajar jot amul nelaw di lu di lor nit ñi di lor dëkkandoo yi di tëgg di yuuxu di fecc di tox yàmba loolu mooy sunu pas-pas suñ jëm moo tax lii dinu dal dinu dal nu bu ñuy ay gaz yu yokk du dara ay ceeb yu yokk mbokk yi du dara ñàkk courant yi du dara yii di du dal ni yu ndaw ndawaan yi gis sunu dund nga xam ne tey nu mu tare amul koy dajal lu dul réer yii dëkk bi metti na amul koy dajal ko du ko wax loolu nag du dara parce que ñun ñoo jaamuwul yàlla lan la yàlla wax wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan hasanatan danka yàlla nee na ku dum mooy li ma indi rek nga dund dund bu naqari allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعزمنا بعد الموت اللهم يا مغير الأحوال غير أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا غير أحوالنا إلى أحسن الحال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة أما أسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر السلام
الله